أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu tey sunu darsu siira tomb bi ñuy fàttali tey mooy taxwiilul qibla ilal kaaba mooy jële gi yàlla jële yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jublu bim daan jublu masjidil aqsa daan julli yàlla subhaanahu wa taala daa di koy wëlbati daa di koy jubal ci kaaba gi foofu yàlla tuddee masjidul haram mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam borom bi subhaanahu wa taala bàyyi na yonent bi alayhi salaatu wassalaam juróom benn weer sittata ashara ashur yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon na ko julli di ko jublu masjidil aqsa sittata ashara waaye yonent bi jublu boobu mu doon julli di jublu masjidil aqsa neexul yonent bi alayhi salaatu wassalaam li tax mooy da ci doon dégg ay wax yoo xam ne yahuud yi ñoo ko doon wax naan yonent bi day mbiram jaaxal nañu waaw naka lay waxee ne moom yonent bi moom gëmuñu bëgguñu moom gëmuñu bëgguñu ba pare di julli di jublu ci sunu xibla loolu nu mu mën nekkee waaw kii day wuuteeg ñun lu ñu def mu def leneen waaye bu julleem jotee mu julli jublu sunu xibla ah vraiment ñun daal jàpp nañ ne kon bisa ngi ñëw comme d'accord naa julli jublu sunu xibla bisa ngi ñëw dana ñëw wuy sinu dana bàyyi li mu nekkee wuy sinu ah loolu nag bi ko yonent bi déggee mbir mi def na ci moom problème bu rëy mu daan génn sax di xool kaw asamaan di xool ci suuf xool ndeyjoor xool càmmoñ delloowaat ay bëtam kaw asamaan xolam ak xelam yépp ànd ci xalaat amaana bisa ngi ñëw borom bi subhaanahu wa taala dina ko wax walla mu leeralal ko walla mu indil ko walla mu dikkal ko ci mbir mi yahuud yi di wax naan bisa ngi ñëw dana bàyyi lépp lu mu nekk fekki sunu comme nangu na jublu sunu jubluwaay ñun yahuud yi bi loolu amee yonent bi alayhi salaatu wasalaam di soppi kanamam gi ci kaw asamaan di yaakaar ne borom bi subhaanahu wa taala dina ko wàcceel lenn ci ay lay yu ko leeralal li yahuud yi di wax noonu la ko yàlla defee ci mbetteel borom bi subhanahu wa taala daal di koy wàcceel aaya qur'an yàlla ne ko qad nara taqalluba wajhaka fi ssamaa'i falan walliyannaka qiblatan tardaaha fa walli wajhaka satra almasjidi alharam yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maa ngi lay séen di la gis yaa ngi walbati sa xar kanam ci asamaan di xool ci suuf di xool ci kaw di sëgg ka siggi man yàlla xam naa li nga mébét ak li nga bëgg dinañ la soppi jële la wëlbati la jubale la ci barab boo xam ne barab ba dinga ko nangu ndax gërëm nga barab ba kontaan nga ca xiblatan xibla goo xam ne tardaaha gërëm nga ko danaa la wëlbati jële la ci masjidul aqsa jubal la ci masjidul haram yàlla daal koy jox ndigal moom yonent bi ne ko fa walli wajahaka jubalal sa xar kanam gi sataral masjidil haram côté wet xibla goo xam ne moom mooy makkatal mukarram te mooy jàkka ju ju tedd jooju loolu mi ngi am fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi ngi nekkoon ci julli tisbaar yonent bi julli ñaari rakk ci jàkka jooju ñu tuddee masjidul qiblatayni bi loolu amee jibril ñëw ci moom ne ko yàlla nee na nga wëlbateeku jóge masjidul aqsa jublu masjidul haram yonent bi foofu mu nekk ci biir julli gi toll ci rukkoo fa la wëlbateekoo rek daldi jublu masjidul haram te mooy ci kaaba gi sahaaba yi ridwanullahi alayhim yal na leen yàlla fay bi yonent bi walbateekoo ñoom ñoom ñu walbateeku bi yonent bi sëlmalee ci julleem daal leen di laaj laajam gu réy ga ne leen lu tax ngeen walbateeku ñu daal di koy tontu seen tont bu màgg ba ne ko yaa wëlbateeku ñu wëlbateeku sallallahu alayhi wa sallam gis nga ñooñu noonu la ñu doon toppee yonent bi tànk ak tànk mbagg ak mbagg bu leen woowee ñu wuyu su waxee ñu déglu bu leen teree ñu bàyyi bu leen digalee ñu jëf yaa tourné ñu tourné yaa wëlbateeku ñu wëlbateeku allahu akbar tooguñu di xaar naan waaw ba mu pare mu leeralal ñu man de balaa may wëlbateeku mu leeralal ma ci xamuñu fu mu ñu jëme bu téye mu ne lii suba mu ne lee tey mu jublu fii suba mu jublu fële déedéet ñooñu seen philosophie moo doon sami'na wa ata'na dégg nañ dañuy jëfe lu yonent bi def rek noonu la moo wëlbateeku gaa yi wëlbateeku boo demee tey ci jàkka ja di nga fa fekk jàkka ji am ñaari xibla ñu ne la bii mooy bu njëkk bi bii mooy ñaareel bi mbokk yi noonu la yàlla subhanahu wa taala wëlbatee yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam jële ko masjidul aqsa jubal ko ci masjidul haram waqad kaana fi tahwili alqibla ila almasjidi alxarami xikma azima nekk na ci yàlla wëlbati gi mu wëlbati yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam wëlbati gi ko yàlla wëlbati jëlee ko ci masjidul haram yóbbu ko masjidul aqsa ay xam-xam yu xereñ ay mbir yu màgg làqu na ci xam ngeen ne yahud yi ak nasaraan yi yonent yàlla muhammad nee na yàlla daf ma yónni pour ma wuuteeg ñoom fekk na leen ñoom yahud yi ñuy foo samedi def ko feet di ci caaxaan yahud yi di foo samedi nasaraan yi di foo dimanche di ci caaxaan tudde ko feet moom yonent bi mu indi aljuma ne yéen jullit ñi bu ngeen di feetu feetu leen ajjuma mu fekk leen ñuy woor ashura mu teg ci tasua fekk na leen ñuy woor tamxarit yeneen tamit ne yéen jullit ñi woor leen tamxarit ak bis ba ca tegu mu fekk leen ñuy wat seen sikkim yi ñoom nasaraan yi yahuud yi di bàyyi mustaas yi ak sikkim yi yépp wàcc gudd yonent bi ñëw daan ne yéen wàññi leen mustaas yi ngeen bàyyi sikkim yi fekk na leen ñoom ñaari xeet yooyu yahuud ak nasaraan ci seen jàkka yi bu ñuy julli bu julli jotee ci jàkka yahud yi béjjén la ñuy ëf seen temple yi béjjén la ñuy ëf mu fekk catholique yi ci seen église yi ñuy tëgg cloche moom mu daal di ñëw ci jàkkaam indi nodd wuuteeg ñoom mu fekk leen bu ñuy julli dañuy simmi seen dàll moom mu ñëw julli sol dàll wuuteeg ñoom mu ñëw fekk leen ñuy feetu 31 décembre ak 24 décembre moom mu ñëw indi tabaske korite wuuteeg ñoom mu ñëw fekk leen seen soxna yi bu ñu indisposé dañ leen di génne ginnaaw kër gi tëj leen ci ay pantare ki ruq moom mu ñëw ne isna'u kullu shay'in illa al jima def leen lépp bam des sëy nekk leen ak soxna yi lekk leen ak ñoom waxtaan leen ak ñoom fanaan loo neen ak ñoom def leen lépp bam des sëy wuuteeg ñoom fekk leen ñuy julli di jublu masjidil aqsa mu ñëw julli masjidil haram jublu fa wuuteeg ñoom bi loolu amee gaa yi ne waa waaji lu ko dal moom daal lépp lu mu fekk ñuy def changé na ko wuuteeg ñoom bi ko yonent yàlla muhammad déggee dana yàlla def ma yónni pour ma wuuteeg ñoom kon ñun dañoo war a wuuteeg ñoom kon xam-xam secret bi yàlla def ci jële kaa jubluwaay bi masjidil aqsa yóbbu ko masjidul haram mooy wuuteeg ñoom rek ñun dañoo war a yàlla def ñu wàcce pour ñu wuuteeg ñoom bokk ñoom ñoom dara mbokk yi yonent bi fekk na yahud yi woor 40 jours moom mu ñëw woor 30 jours wuuteeg ñoom kon natt bu rëy moo ci nekk wa mihnatun linnaas natt bu rëy yàlla dinu nattu di xool ndax nit ñi danañ topp yonent bi ci yàlla yónni gim ko yónni muy wuuteeg yahut ak nasaraan nattu la ndax tey bépp jullit bu nanguwul topp yonent bi yow nattu dal na sa kaw mooy yow yahud yeeg nasaraan yi ñoo la gënal yonent yàlla muhammad ku mu mën a doon nag muslimun muslimuhum wa kaafiruhum bépp jullit bu nanguwul dégg yonent bi yàlla nattu na la yéeféer yi képp ku nanguwul tuub topp yonent bi yàlla nattu na la jullit yi nattu lañu yéeféer yi nattu la yéeféer yi bu ñu nanguwul tuub topp yonent bi jublu ci xiblaam yàlla nattu na leen jullit yi bu ñu nanguwul wuuteeg yahut ak nasaraan ci li yonent bi wuuteeg ñoom yàlla nattu na leen su ko defee mbokk yi sunu darsu tey mooy taxwiilul qibla ilal kaaba soppi gi ñu soppi qibla gi jëme ko ci kaaba gi léeg-léeg nga dégg ay jullit naan penku la ñuy jublu déedéet jublu ñu penku de qibla la ñuy julli qibla la ñuy jublu ni ko yàlla waxee yonent bi noonu lañ ko waxee fa haysuma kuntum fa wallu wujuhakum satrahu fépp fu ngeen mën a nekk jublu leen ci kaaba gi kenn du wax ne penku laay jublu penku bi fii la foofu laay jublu déedéet jullit orienté wuñ ko ci penku ñu ngi ko orienté ci xibla fépp foo mën a nekk dàkkal xibla gi jublu ci moom julli dafa bokk ci sarti julli istiqbaalul xibla jublu xibla képp ku julli jubloo ci xibla gi te yaa ko tey sa julli yàqu na ba mu des kuy naafila kooku mën naa jublu julli te du jublu xibla rawatina bu nekkee ci oto nekkee ci avion bu waree mbaam mais bu fekkee julli juróom farata def cee bokk istiqbaalul xibla jublu ci xibla gi su ko defee incha allah doomu ndey yi mbokk yi ñu jëlee ci njàng bu rëy ñu xam ne yonent bi juróom benn weer sittata ashara mooy fukki weer ak benn fukki weer ak benn sittata ashara shahran fukki weer ak benn au lieu de juróom benn weer fukki weer ak benn fukki weer ak benn moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam julli jublu Jérusalem fukki weer ak juróom benn moom la yonent bi julli jublu Jérusalem ba mu ko defee li tax mu dëpp fa mooy la mu dégg yahudi yi wax di ñaxtu wax jooju metti ko ci la ko yàlla subhanahu wa taala soppi jële ko ci seen xibla yóbbu ko ci xibla gi gën ci xibla yépp te mooy kaaba gi mu nekk njàngale yu am importance yu ci yàlla subhanahu wa taala dencal jullit yi ak natt bu mu leen ci natt pour xool kan mooy topp yonent bi ci li ko yàlla jox ak ñan ñooy lànk jàng dars bii di ñëw incha allah ñoo ngi koy def ci waaj badr ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu fekke asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh